am regret la. Mhm. pourquoi regret. mooy dama gis état mobiliser force yu musul mobiliser. ngir aaye benn citoyen sénégalais mën a nekk candidat. nan la mobiliser. ses avocats ses agents judiciaires ses conseillers techniques et juridiques. Mmh. simplement pour aaye benn candidat mu nekk candidat. donc tout porte à que l' benn mission la muy empêcher la candidature de Ousmane Sonko mais non l' application de la loi. <coughs> parce que li ñuy li ñuy rëddëgloo lii lépp lenn rek kay but final bi mooy bu Ousmane Sonko nekk candidat donc ñoom dañ nekk di dëggal li Ousmane Sonko waxoon ci jël benn coow li ak aperçu bi li ëpp ci sénégalais am mooy procès yëpp lenn ay sabab bi mooy Ousmane Sonko bu mu nekk candidat bu ñu amee crainte boobu ci Ousmane Sonko bu mu nekk candidat mooy jàpp nañu Ousmane Sonko bu demee nekk candidat dafay gagné. maanaam li ñu def nii maanaam aveu la aveu benn ci ragal gi ñu ragal candidature Ousmane Sonko. aveu ci gëm gi ñu gëm ne bu demee dafay gañe mhm. loolu ñaar la boo ñëwee ci décision bi CEDEAO war a délibéré man dama ci jàngat comme quoi ñuy jéem a gagné temps mhm. le 17. ci loo xam ne procédure d'urgence nga yóbbu ko ba le 17 on dirait que tout porte à croire que bi dafay def tout son possible pour gagner temps. la cour de la cour de la CEDEAO waaw xaw ma nag à quelle fin. Mhm. mais loolu laa jàpp ni ñuy déroulé. léegi nag ci kaw foofu en tant que analyste politique lii nekk ñëw sa xel mooy est-ce que du li bëgg-bëgg nguur gi dëgg-dëgg mooy tardeel Sonko boobu final ñu jox ko parrainage am. ci yaakaar ne bu ñu ko ko joxee ci diir bu gàtt du mun a dajale lim bëgg am. ndax loolu pari la boo xam ne ñoom pare nañ dem jusqu'au bu ndax man gëm naa ne Ousmane Sonko à moins de quarante huit heures. war naa mën a dajale li mu soxla ci parrainage. mais nag ci doxalin dafay mel ni danañ ko joxe ji waaye dañ koy tardeel le maximum possible. Mhm. wala dañ koy tardeel ngir pas ki yaakaar ne du ko am mais ngir bañ propagande bi doon. entouré utu parrainage am machine u Pastef di ko dund di wane seen force ci réew mi ñun nuñ mën a réduire temps bi ñu réduire temps bi mhm. loolu benn la léegi nag décision CEDEAO comme ni ko mami waxee mënul lem loxo état du Sénégal ndax l' état du Sénégal rarement lay am gain de cause à l' international contre ses opposants mhm. mais à chaque fois lim bëgg def lay def mhm. ba ci parrainage bii rek dégg nga li ci cour de justice CEDEAO donc état moom li li CEDEAO di wax mi ngi koy appliqué ci bi mu kay neex. Mhm. loolu benn la mais décision cour de justice bi dafay joué ji cour suprême. Mhm. ci seen délibéré. Mhm. ndax bu CEDEAO délibéré lu lu favorable au candidat Ousmane Sonko dafay jafe trop cour suprême fi tranché lu uteeg loolu. je pense que looloo tax avocat mi enclenché procédure bi. procédure euh, bi ñu dugal biir CEDEAO ndax dafay jafe bu boobaa cour suprême délibéré lu uteeg loolu. Mhm. donc je pense que ngir gën a chargé seen dossier gën a fexe ba cour suprême mënut a délibéré lenn lu uteeg ñoom liñ jàpp ni mooy la droit te tey ma ci félicité kii di avocat Maître Ciré Clédor Ly vraiment buy wax tey da am fierté ndax droit lay wax pur et dur. mais euh, bu ñu bu ñu ci avocat yi peut-être que jàpp nga ne droit lay wax mais bu ñu sukkandikoo ci avocat yi nga xamante si ñoom ñoo fa nekk lu jàppoon nañ euh, ñoom la ñu jàpp ne maître Clédor la mu doon def ak Juan Branco politique la def cest à li ñu doon wax foofu c'est des discours politiques ça n'a rien ak am na benn benn benn avocat bu ko wax bu bu nekk bu bu nekk ci état bi ah, buy buy défendre état bi nee na kooku matul à <laughs> nawle maanaam sa wujju bu lay sëlam doo set. Hmm. waaye demal seet koo xam ne du wujjam du wujju kële nga laaj ko ndax maître Ciré Clédor Ly tey bi mu waxee lan la wax droit rek lay wax. li ma lay wax rek. Hmm. droit moom léegi boo koy wax dañuy xool sa chapelle politique lan la mais demal seet kenn koo xam ne du APR du Sonko droit wa ko intéressé nga laaj ko tey euh, ni maître Ciré Clédor Ly plaidé tey. Hmm. nga xam ne dana la wax ne la droit la wax pur et dur donc mooy matal seen dossier la fexe ba cour suprême la muy délibéré munta bañ a nekk li leen favorable loolu laa ci jàpp. munu nekk. mais pas xam ne euh, pour wañ loxo état bi la mais recours bi fii la ñuy préparé fii ci cour suprême man loolu laa jàpp. mais c'est-à-dire dafa am lu wax. mu ne euh, yow aussi wax nga ko muy décision bi mën a tukkee foofu soit mu favorable à Sonko soit mu ñàkk ko favorable de toute façon amul euh, ci avocat en tout cas état bi. ay opposants am dem euh, cour euh, de la justice bu CEDEAO mm-hmm. am fandam ndam état bi appliqué ko donc mm-hmm. pourquoi ñu bëgg a naa la ko non mais nee naa la ñu bëgg jàpp ci CEDEAO donc wax naa la ko di maf wala dëgg ma déglu dégguma la nee naa la oui dañoo dem CEDEAO yow ma déglu non dégguma la dégguma la dañoo dem CEDEAO oui ngir plaider droit waaw ngir buñ ñu fa amee gain de cause mm. délibéré boobu ta taxaw ci kanamu cour suprême fii war a délibéré final. Hmm. te du délibéré lu maanaam lu ñoom lu leen favorable munta ne. c'est-à-dire da nga bëgg wax ni décision bi cour ju cour cour euh, euh, euh, suprême di jël. dafay dépendre dafay impact maanaam lay jóge si enquête enquête enquête enquête dama nga gëstuwaat. mais ñaari cour yi bokkuñu déjà. waaw amee demal nga gëstuwaat munoo am gain de sa CEDEAO fii cour suprême ñëw délibéré lu uteeg loolu dama nga laajtewaat ko d'après les infos yi mu am. yi nga am d'après les infos yi nga am yow. bien sûr man je suis pas un ci samay investigation ak samay gisu rek laa mun basé wu wax la léegi nag beneen aspect bi mooy l'opinion. Hmm. xam nga bu demee ba l'opinion nationale comme internationale mu leer na Ousmane Sonko réeruwul ak yoon. ci réew mi yoon jox na ko dëgg ci bitim réew yoon jot na ko dëgg su boobaa nekkatuñu ci justice ci boobaa politique lañ nekk. Hmm. tout acte politique mérite une réponse politique. su boobaa tere bokk Sonko dafay jafe nguur gi layal ko tiigintee Sonko dafay jafe nguur gi layal ko ñàkk bokk Pastef dafay jafe nguur gi layal ko te bu fekkee nguur gi li muy def mhm. tënkootul ci droit jaay doole la attention porox ndoolu boobu nag bu ci nguur gi duggee piège la ci moom d'accord mais si fois euh, comme ni nga ko waxee cour de la CEDEAO bañ a jox Ousmane Sonko dëgg ci mbir mi cour suprême bañ a jox dégg ci Ousmane Sonko aussi si mbir bi naka lay demee boobaa. boobaa Ousmane Sonko day day nangu tënk ci li droit wax rek. bañ a bokk dootul bokk xaw ma ndax avocat mi su boobaa. question boobu ñu bëri duñ ko posé ah, ci duñ ci kii ah bu ko joxee dëgg rek mais tamit. il faut ñuy xalaat suñ ko waaw il faut ñuy xalaat su fekkee joxuñu ko joxuñu ko. tous les ah. hypothèses sont la table. xam nga Ousmane Sonko sóor ko moo tax mu dem jëliloo ay. mu dem jëliloo ay allié am fiche de parrainage. kon leer na leen moom sóor na hypothèse bi ngay wax ni moom moo la ko njëkk a sax moom mi dem retiré loo ay fiche parrainage ay allié am. oui mais c'est après c'est allié yi ñoom ñooy dem mais moom du mën a bokk. waaw mais de mais li nga wax laa la tontu maanaam moom sóor na hypothèse bañ a bokk moo tax mu dem wax ay nitu partem dem jël. parce que l'importance pour Pastef ce n'est pas coûte que coûte Ousmane Sonko bokk mais de gagner ces loolu mooy l'importance de Pastef mais su fekkente ni loolu aussi dafa am ni ñuy wax ne eh, ses alliés nga ni ñu bëri jël nañu ay fiches de de parrainage mais est-ce que duñu am un un président par défaut ndax mun ñu am un président par défaut te ci di occasion la woon pour ñu mën a fal euh, maanaam du ñu folle mais dañuy fal. xam naa mais boo moytuwul aussi ak situation bi est-ce que du ñu. xam naa ne daal loolu la ci ci situation yi gën a pire sax. li naa ne nga xam ne du ñu fo du ñu du ñu fal mais dañuy folli. xam naa ne daal mais fii non seulement mais du ñu fal. xam naa ne daal loolu la état bi bëgg. Ah. imposer ñu président bu ñu tànn. ba may tudd du ñu folli du ñu fal de. yaa ngi dégg. loolu la état maam li régime bi bëgg. nii mm-hmm. li muy nduróol mooy imposer ñu seen président boobu. loolu nag askan bi seen président bopp loolu nag askan bi du ko d'accord parce que élection présidentielle rendez-vous la entre un homme et son peuple. Mm-hmm. du dëgg askan bi bu tànnee benn nit. na kii la porter espoir bugg mu jiite ko nga créer situation boo xam ne kooku du bokk. Mhm. yow ki ñu bëgg imposer kooku un day am problème de légitimité un dafa am problème d'asseoir son autorité troisième bi c'est un président très dangereux pour ce régime. gis nga Ousmane Sonko. mais loolu mën nañu ko jox ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ma loolu mën nañu ko xaaral ma déroulé. mën ah, ah, ah, xamal li muy wëlis. demal demal Ousmane su nekkul président. Hmm. wala bu demut maanaam Ousmane Sonko comme président. moo gën a oyof ci état du Sénégal. wala moo du wax l'état l'état c'est autre moo mm. gën a oyof ci ñi yore nguur gi sa régime. Mm. xam nga mm. keneen ku dul Ousmane boo accéder au pouvoir moo xam plan B wu la moo xam ñoom seen candidat. Mm-hmm. da ngay soxla asseoir sa autorité da ngay soxla wone ni sa nguur gi dafa légitime et pour ñaar yooyu asseoir sa autorité ak imposer sa légitimité. Mm-hmm. da ngay def li nga xam ne mooy demande populaire bi. mooy tu vas taper sur le régime rit maam euh, nu ñu koy waxeeti foo jaar dangay ngay euh, da ñoom seen gestion mhm. ngir wane ne sax yow ñëw nga ngir def lu uteeg ñoom liñ fi nekkee woon mhm. wala ngir ñëw nga ngir def li sénégal yi bëgg mhm. moo xam Amadou Ba mii la bu ñoom bi ñu tànn bis bu faroo moo xam paate la moo xam x rawatina nag ki nga xam ne mooy plan beewu wu Ousmane Sonko Ousmane seul homme politique bu am légitimité wu toog remplacer nguur gi na dafuma chasse aux sorcières. et il l'a dit même. sama man damay focus ci liggéey bi. Mm. Sénégalais am euh, ma ma daal exemple Amadou dama lay relance tuuti fa Amadou Ba fay su fekkoon te ne gagné na Amadou Ba su fekkoon gagné na le candidat de Bokk Yaakaar su gagné woon su ko neex aussi ne du def du def euh, comme ni ngay wax. non ko continuité lay nekk. Ah. mënu ko su ko waaw may ma neexee mën na reconduire équipe bi nga xamante ni tey moom la àndaloon ci Macky Sall. ànd ak ñoom liggéey. léegi may ma ma loolu moom. Amadou Ba bu defee loolu. day am problème de légitimité devant le peuple sénégalais nel benn sénégalais yi du ñu consommer ah Amadou Ba comme président. Mm. ci instabilité lay yore ba. ba fi mu koy jeexalee déglul ma wax la beneen les sénégalais ne vont pas s'identifier parce que foog nga xam benn affaire mm. dañu yore réew mi pendant douze ans boo xam sénégalais yi d'accord li ëpp ci sénégalais yi d'accorduñ ci nañ ko yoree bépp président bu ñëw pour asseoir son autorité marqué empreinte am wane ni moom toog na sénégalais yi ànd nañu ak moom fexe ngir fexe sénégalais yi ànd ak moom ngir jëm ci sénégalais bëgg foog mu def audit maanaam la gestion de ce régime il va taper par A ou mun na bañ a taper sur ñëpp nag mais il va taper kenn laa la wax kese hmm. moo am légitimité wu remplacer fi régime bi na man defuma loolu lii laa tànn askan bi nangu ko mooy le président Sonko. ñu bàyyi sàcc yeeg yëpp ñu dem. non waxuma la bàyyi sàcc de non non waxuma loolu. ah déet loolu nga wax mais bu audité wul ne audité wul. moom sañ nañu tey non audit bokkut mais mais il faut audit à la couleur day am. audit à la ah, Ba su fi su su su gagné woon jii day def audit. audit il faut mu am mais tey li ngay wax nii li ngay wax nii ci Ousmane Sonko su fekkee Ousmane Sonko def na ko aussi day toog même su ko ci sénégalais yi. gestion kat. moom gestion non mais tamit bu fekkee dina dina def état des lieux xanaa avant muy muy dem. Mahfouz jël muy jël kenn kooku audit pas dire que dañuy jàpp nit. non chasseur laa la waxuma la ak audit. oui ki fii ñëw du uutu. Hmm. pour asseoir autorité par A ou B day def chasseur sorcière Macky Sall bi mu jotee réew mi da ko def pour asseoir son autorité marqué benn rupture ak le régime de Wade. dont il a été. mais defu ko ak ñi mu ah. comptable. moo tax ma ne la keneen ku ñëw. Hmm. ngir wane ne li fi nekkoon uute na ak yow li nga indi par force da ngay def loolu. léegi nag ci def loolu kenn laalox moom légitimité wu man def ma chasseur sorcier. taw boobaa autorité am day imposer parce que légitimité am moo ko ko permettre ak popularité bi mu am actuellement. Hmm. bu ko neexee mu ne dugg ma ci mbirum chasseur sorcière li may braqué wu muy liggéey. moo tax man la Ousmane moo gën a sedd ci régime bi en deux mille vingt quatre ki nga xam ne mooy nekk plan B kooku day boole ñaar. ñuy boole. day boole auditer gestion bi ci lu jaar yoon. Mhm. boole ci mel ni koy fayul mer maanaam ñu ko fal. ki gën a sedd pour ce régime Ousmane Sonko la en deux mille vingt quatre. te mhm. yàlla nañu yàlla may gudd fan ak fekke. du yomb de. bu politique nag laa la wax. d' après xoolal du ay léeboon léeboon de li ma la wax mën naa jël exemple yu bëri. Mhm. bi ci gën a bi ci gën bi ñu gën a jege mooy Gazouani ak Abdou Aziz. Gazawaane Abdou Aziz a ko imposé. si déglu def ko. candidat baataral ko campagne. Mhm. meetingu Gazawaane Abdou Aziz a ko daan tijji. baataral ko campagne jabaru Aziz nga xam ne elle était influente biir Nouakchott wàcc ci terrain campagnal ko ba mu gañe Aziz biñ ko coup d'état wee jam ko blessé ko nguur gi Gazawaane la ko dénk. bi rébellion bi commencé au sein des généraux bi Aziz di raxas chef d'état-major Gazawaane mii la ko dénk. c'était son de confiance moom la gënoon wóolu ko takk ndeer mais bi Gazoana jotee réew mi pour asseoir son autorité ak légitimité. dafa dal dugal ci kaso jël ko dugal ci kaso bi. Aziz et ses ministres. keneen ku fi uutu sa régime pour asseoir sa autorité. Hmm. par A ou B pare nee naa la kenn rek. Hmm. moo mun jot le pouvoir. ba pare na man tànnuma direction boobu ba pare sénégalais yi wuyu su ko ci muy Ousmane Sow. d'accord merci beaucoup donc donc leer na li nga wax noonu Mamy Samb.